contre le retrait de mais, ce mais, xoolal ni ñu critiquer tey assemblée nationale <laughs> ña fa nekk y a beaucoup de gens qui sont indignes aujourd'hui d'être nationale ah. ci ndax lan mais saaga nday yëg xeex yëg kawasaki yëg maa ngir yi loolu kan ma ko musam mais ñun on était dans une législature mais mais ministre bu doon ñëw da nga daan muulu hmm. di préparer say dossier quarante soixante douze heures parce que ay teg nga fa fekk dañuy toog jàkkaarlook yow ci lépp mais lan moo koy en commission mais tey on a critiqué parce que on permet à tout le monde aujourd'hui sur les bases politiques de sa la démocratie mais quelle démocratie justement assemblée nationale c'est à l'image donc de notre peuple li nekk assemblée ñoo leen choisir je suis désolé malheureusement rek xaw ma heureusement ñoo leen choisir li mu wax mooy assemblée nationale tey jii pour éviter li fa am ni amaat fa naka la war doxalee ah, mais d'abord sur le choix des je pense que pour pour pour pour euh, l'opposition li leen gën a sonal mooy que seen liste euh, kii bi. titulaire yi titulaire yi jàllul. Mhm. moo tax tey oui boobu y avait y avait des noms. xam nga boo ay Dembooch. voilà ay bourrage ay bourrage ay bourrage la nga bëggoon ci bii xam nga euh, kii suppléant yi bourrage la da ngay jël jël candidat yi il remplisse donc malheureusement ça a aujourd'hui sur le niveau très faible en dehors de ñoom yum 3 4 5 6 personnes kan nga gis foofu tey. mais dans votre camp aussi quand on voit benn Soxna Dieng Mbacké remplacé par Koura Macky loolu aussi <laughs> c'est pas encourageant. oui mais mooy li may wax c'est-à-dire euh, c'est les circonstances qui déterminent les choix xam nga au départ bon je ne peux même pas c'est difficile. Mm-hmm. mais bokk na li ci tax li li li président di wax ne que qu'on permette effectivement un président bu toog rapport de force yi moo andi woon tey. législature bu mel nii un président de la République février mu ñëw toog mais bëgg a dérouler surtout que urgence yaa ngi fi et la guerre